ñun ne tamit Sénégal bi yëpp commune yëpp dañ ci war a am ñoo xam ne dañuy am projet yokk koom-koom ñun ñëw fi tey woote autorité yi nga xam ne ñoo fi toogal nguur bi ñu woo aussi conseil départemental woo maire yi woo délégué de quartier yi euh, bàjjenu gox yi ak relais communautaire ñëpp ñu ñëw ñu teewee ñu fekkee ñan la ñuy tànn ci tirage au sort mais aussi ñu expliquer leel projet bi naka lay demee pour ñëpp xam ko nga xamni buñ ko xamé bëss buñu tanné ba commencé ñëpp dinañ xamni luñu nekk ni di daf ba paré ñëpp dinañ ci japp daf ci seen loxo yaakar nañ loolu. boo leen seetloo projet programme national de bourse de sécurité familiale bi président Macky Sall jëlé réew mi dafa né nañ tek lo xamni dinañ jappalé néew di doole parce que waruñu tok rek am ñoo xamni dañu néew doole ñu wàccee leen ak seen bopp il faut ñu jëm leen xëcc. ñu def programme de bourse bi nga xam dana la la jappalé 25000 par trimestre mais surtout dinañ leen former.

ñoom ni ñuy nattee si si seen euh, mbootaay yi dina tax cent cinquante mille boobu ñu mun si liggéey liggéey boo xam dina am jërte comme niñ leen ko waxee sànq am na si Dakar ñoo xam ne seen kees mujj na ba am plus de cent millions si seen kees donc formation bi ñu leen defal ak accompagnement bi ak xaalis bi ñu leen jox dina tax buñ si góor góorgóorloo dinañ dem ba mun a am xaalis bu bëri bëri boo xam ni dina leen jëriñ dinañ mun a dem def activité yu gën a yaatu ndax am nañ fi ay exemple yoo xam ne ñoo xam si projet yokk koom-koom bi dem nañ ba am seen entreprise di euh, employé ay ay nit ci seen biin entreprise. njaboot bi lañ ko jagleel waaye xam nga bu ñuy wax liggéey kenn la ñuy njaboot bi mooy tànn kenn koo xam ne leer nañu kii dina mën a def liggéey bi moom mu dem mu bokk ci association yooyu.